société bi ngeen di liggéeyee wala ngeen bokk benn kër bu waxtu julli jotee yow nga dem jàpp dem julli ji moom mu nga toog fa mu toog waaw di lire journalam wala muy nekk ci tabarkalam eh, Facebook bi rek di di di di di tabarkalla rek di fo rek waaw yow nga dem julli jox yàlla tabarakallahu li mu moom lim la sant daal di gañe lu rëy daal di ñëw toog ah bu ëllëgee yowmal am itam dana la seen gis la dana bëgg itam xaritoo ga doxoon nag yow ci àdduna ngeen dundaat ko waaye doo ko tal ndax moom ñu ngi ko pamti pamte jëmee ko safara yow nag ñu ngi la kor ñu yaa ngi ci cortège bu rafet waaw malaaka yi dar la di la ñaanal yàlla tabaarakallaahu pour yàlla yokk say maqaama yaa ngi jëm aljanna waaw moo tax ñu ne waa aljanna la leen yàlla di njëkk a teertoo mooy seen bis bu njëkk bisu céetal la waaw ñoom ñëpp nag yàlla def leen di jox ay ayni ak seen jabar yu baax yi ñu nekkaloon ci àdduna su ko defee nag eh, lune de miel bu neex la leen yàlla di teeroo tabaarakallaahu seen fan yu njëkk ci aljanna fii la ko tuddee ci saar wi mu ne inna asxaabal jannati na leen leer ne waa aljanna al yawma tey fii shughulin nee na ñu ngi ci occupation faakihuuna ñu ngay xéewlu ñu ngi ci bànneex yu jéggi dayoo hum ñoom wa azwaajuhum ak seeni soxna ha fii ñu ngi ci ay hôtel nee na mu tëkki wane ñu ngi sóondu alal ci ay canapé yu nooy ti nugg tabaarakallaahu moo tax taluñu waa safara waa safara ñu ngi leen di di leen dóor di leen toroxal ñu ngay yooxu di woo waa aljanna di leen ñii ci xéewal ga ñu nekke waaye waa aljanna taluñu leen ndax bànneex yu kawe ya ñu nekk waaw hum ñoom wa azwaajuhum ak seeni soxna fii dilaalin ñu ngi ci ay hôtel ci ay ker ci ker nga koy firee ca firi mag ña waaw mu tëkki una ñuy way sóowndu alal araiki ci ay canapé yu nooy waaw lahum ñeel na leen fiyaa ci àjjana jooju nee na faakihatun nee lépp lu di xeetu fur bi wuy dundal seen yaram waaw walahum suñ borom ne ñeel leen sax ñeel na leen fa sax maa yaddauna lu ñu soxla waxuma sax fur wi yañ fay lekk waaye lu ñu soxla rek bu ñu ko laajee ñu indil leen waaw foofu nag dana am la xew waa àjjana foog nañ ne àjjana mooy li gën a neex ba ñoom ñëpp ñu nga ca soxna ya ak lekk ga ñu nga ca hôtel yu nugg ya ñu nga ca bànneex yu kawe ya tabarakallaahu foofu la ñuy toog rek jékki-jékki rek daal di gis nag lu dàq lu dàq lu dàq loolu ñu nekkee te mooy lan jëmmu yàlla ndax yàlla mu dàq aljanna foofu nag la leen yàlla di feeñoo moom lay wax ci aaya bi te moo di salaamun qawlan min rabbir rahim ñu ni li mu jublu ci salaamun qawlan min rabbir rahim ñu ne inna allaha taala yatajalla li ahli aljanna wa yàlla dafay feeñu wa aljanna daal di leen nuyu waaw mais tëllug yàlla ak nuyoo gi bànneex musul nit mësul am bànneex bu toll noonu du aljanna ndax àjjana yàllaa ngi wax ni lafa ne ci taar bët mësu ko mësu ci tege lafa nekk ci bànneex loxo mësu ko laal xel mësu ko daj làmmiñ mësu ko mos waaye nag bànneex ba gën a kawe ci bànneex yooyu mooy gis ga ñuy gis yàlla moom lay nettali ci salaamun qawlan min rabbir rahim li koy firndeel nag mooy xadis bi nga xam ne ci bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na bu waa ajjana nekkee ci seeni xéewal nee na ba xéewal ya jéggi dayoo ca ñoom ba ñuy bànneexu nee na dana am benn leer goo xam ne nee na mooy jékki-jékki rek feeñ ci seen biir ñoom ñëpp dootuñu talati bànneex yooyu ndax leer googu dafay dugg ci seeni cër ndax leerug yàlla du bët rek a koy gis waaw loxo da cay bànneexu tànk di ca bànneexu biir di ca bànneexu lépp di ca bànneexu waaw nee na leer googu bu ñëwee nag fekk na booba suñu borom subhanahu wa taala mu sëpp waa aljanna nee na sëpp gu xaw a niroog ni ñu weer wi sëppoo ndax yàlla moom jegeem ci doomu aadama jéggi na dayo waaw moo tax daf ñuy tiim ni ñu ni ñu weer wi tiimee ñu koy seen kemtalaayu ni ñuy séene weer wi waaye nag weer wi moom amul benn effet bu muy def ci ñun ndax mbindeef la yàlla nag lum ñu sori sori sori sori waaw gis nga ba mu feeñoo muusa waaw montagne ba daal di xar te dañu wax ne eh, daf ko sànni ci leeram rek lu toll ni bën bënu pusa bii nag dañu ko ëpp ndax bu boobaa nag waa aljanna daañu am maqaama goo xam ne daañu mën a dékku leer ga ndax yàlla leen ko xéewale nee na suñ borom nag bu leen feeñoo ba ñu siggi ñoom ñëpp jàkkaarloog leer gi xool ko di yëg bànneex bu ñu mësta yëg nee na suñu boroom nag kàddu gii la leen di nuyoo te moo di assalaamu aleykum yaa ahlal janna maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm gu sax dàkk yéen waa aljanna xuluudun bilaa mawt fi ngeen di nekk dootu leen deeti ba abadan mukk dee kay moom dootul amati sama digganteeg yéen du ngeen feebar du ngeen màggat du ngeen am problème fii hôpital amu fi douche sax amu fi àjjana amul douche parce que dafa am lu ñuy tuddee Eh, arraxiq eh, dañ ko def ci ñamu àjjana yi ba nitu àjjana su lekkee bu waree dem wa nag da koy ñaq te ñaq bi parfum lay nekk ndax xeet la muy lekk ñam bi mooy moo bindoo noonu waaw su ko defee nag doomu aadama yi ci xéewal googu la ñuy nekk suñu borom nag feeñu leen ci leeram googu nee na nag buñ ko nee jàkk dootuñu xoolati leneen dootuñu yittewoo leneen loolu nag yonent bi moo ci njëkk moo ñu ci njëkk ndax suñ borom mu ngi ñu koy wax ci al mi wal neena bi yonent bi demee ba jàkkaarloog yàlla nee na nangootu la xool leneen yàlla ne maa zaaxal basar wa ma taxa waaw ba jàkk yàlla nanguwut xool leneen waaw yàlla zaaxa nee na jengul moom bëtu yonent bi al basaru bëtam ba wa ma taxa nee na te jëm ci leneen kon yàlla kenn du ko xool di xool leneen bi borom bi demee nag nuyu leen nuyu boobu ba dem nee na nag ca la fa bàyyi nag barke boo xam ne nee na saawaan ci seeni yaram ñoom waa aljanna nena itam daa di royaat ci biir aljanna nga xam ne barke yàllaa nga fa bu njëkk ba xéewal tenga nga xéewalu rek rekk a fa nekkoon léegi nag xéewal ba nag ànd na tabaarakallaahu ak barke borom bi gannaaw ba mu leen feeñoo moom la suñ borom di nettali ne salaamun kàddug nuyoo xawlan nee na ak kàddu la min rabbi rahim nee na bu jóge ci boroom rahimin bu di aji bëri ji yërmande waaye nag yërmande gu mu leel xam nga bu ne woon min rabbin rahman su boobaa nga xam ne kon yéeféer mën na caa bokk waaye min rabbin rahim pour wan la ne ne yàlla baatu rahim ñi koy jaamu rek ñoo ko jago ñamu gërëm te moo di asxaabul yamin ak Eh, assabiquna sabiqun te moo di almuqarrabun yi ñooñu dong ñoo jagoo loolu nee na suñ borom subhanahu wa taala nee na wamtaazul yawma ayuha almujrimun alam ahadi ilaykum ya bani adam an laa tacbudu alcheytan innahu lakum caduwu mubin wa an yacbuduni hada siraatu mustaqim waaw ah. wa an yacbuduni hada siraatum mustaqim suñ boroom subhaanahu wa taala wamtaazul yowma ayuhal mujrimoon am na xadis bu ci ñëw lu tax yàlla tàqale ñi gëm ak ñi gëmul yowmal xiyaam nga dégg malaaka yi naan leen éey yéen saay-saay si génn leen fii ndax wanu leen a toog ak ñi baax képp koo xam ne ab saay-saay nga woon fii ci àdduna gëmoo woon yàlla daawoo ko jàmm dañ lay seppi ci ñu baax ñi teg la fële ba ñi baax des rekk ñi bon féete boor ñi baax féete boor kon tey ànd mën naa am ci diggante ku baax ak ku bon ba ci sëy nga gis jigéen baax lool jëkkër bon lool da nga gis jëkkër baax lool tabaarakallaahu ah, jabar bon lool waaw danga nga gis itam baay baax lool doom bon lool danga nga gis doom baax lool baay bon lool waaw ànd boobu mën na ne fii ci kaw suuf mën na ne fii ci àdduna waaye ëllëg yowmal xiyaam nag ñi baax rek ay ànd ñi bon rek ay ànd moom la borom bi wax ne wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun kon Euh, ràññetle bi borom bi subhanahu wa def ràññetle bi mooy tàqalikoo dëgg-dëgg parce que dañu wax ne nit ki su la tàggoo ne mu ngi dem Chine pour jàngi wala mu ngi dem France pour jàngi loolu du tàqalikoo ndax yàgg-yàgg yàlla mën naa dogalaat ngeen dajewaat nit ki mën na la tàggu sax ci ne tëj neen ko kasoog abat nga tàggatook moom ñu dugal ko ci biir kaso bi nga xam ne kii dañ ko tëj à vie loolu du taxali ko ndax daje mën naa amaat nit mën nga tàggook moom ci dee nga sangu ko jullee ko dugal ko ci biir bàmmeel suul waaw dootoo ko gisati ci kër gi ndax mu ngi ca bàmmeel ba loolu du tàqalikoo tàqalikoo mag ñi dañu wax ni ëllëg rek lay am kañ su fekkee jabar ji nga nekkaloon dafa dugg safara yow nga dugg aljanna wala yow danga dugg safara moom mu dugg aljanna tàqalikoo ba abad la ndax dootu leen dajeeti waaye tey ki nga suul bu ëllëgee yamul xam daa daje ci ëttu àtte bi su fekkente ni dangeen bokk dugg aljanna mën ngeen fa daje waaye nag taxalikoo ngi am ci bu fekkee kii dafa dugg safara kii dugg aljanna ndax kii safara ilal abad la kii àjjana ilal abad la kon nag dee taxalikoo tax eh, yow mi ñàkk sa jëkkër tey wala nga ñàkk sa soxna bul jàpp ne taxalikoo ngeen yàlla na leen yàlla dugal aljanna waaw ndax gannaaw dee daa ngeen daje ci atte ba ëttu atte ba su fekkee seen ànd rafetoon na tabaarakallaahu yàlla dina leen dimbali ngeen dugg na su ko defee nag ànd boobu àndu abad la waaw dafa am àndu abad te mooy ñaar ñi dugg safara àndu abad la ñaar ñi dugg àjjana àndu abad la waaye nag ñaar ñi nekkoon ci àdduna doonte doom la ak wayjur te doom ji bëggoon lu baax wayjur woo bëgg safaan wala wayjur woo moo bëggoon lu baax doom ji bëgg safaan ah ñoom yàlla dogal ñu daje ci ëttu àtte ba kii dañ koy àtte dugal ko safara kii ñu àtte ko dugal ko aljana foofu la taxalikoo di am nag ilal abad waaw ndax suñ boroom dafay dal di seppi ñi baax boole leen ak ñi baax ñi bon mu boole leen ak ñi bon moo tax ñu ne bu yomal xiyaam taxawee dana am benn kàddu gu woo woote ne kullu ummatin tatbau mabudaha bépp xeet bépp nation na dem seeti la mu doon jaamu pour mu fay ko fii xoolal yomal xiyaam yàlla maandu kenn ku ne la nga doon jaamu yàlla dana la yebal ca la pour kooka fay la ah kii jaamu xërëm dana dem ci xërëm bi waaye xërëm amul lum koy fay waaw ki doon jaamu ab yonent dana dem ci yonent ba ndax gis neen ñu fiy jaamu yonent ñu doon jaamu ay waliyu eh, eh, jàpp ne waliyu yooyu ñu doon jaamu tabaarakallaahu Ah, eh, ñoo leen di fay ah, daañu dem pour wali yooyu fay leen te bu ñu demee nag jaaxle leen fay fekk ndax waliyu bi amul dara yonent bi amul dara waaw eh, xërëm bi amul dara su ko defee nag ñoom ñëpp ñu yommi yommi ñoom ñëpp ñu yommi yommi nag eh, jëm ci xërëm ya pour xërëm yi fay leen tabaarakallaahu waaye bu ñu demee nag xërëm yi amuñu luñ leen fay ñii dem ci sëriñ si sëriñ si amuñ luñ leen fay ñii dem ci yonent ya yonent yi amuñu luñ leen fay su ko defee nag jaaxle daal di am nee na xeet yëpp daal di génn mais dafa am xeet bu dëgër bopp mu di xeetu Seydina Muhammad ñoom dañ naan jot du taxaw waaw nee na duñu nangoo dem lu tax parce que naafiq yi nga xam ne gëmuñu woon dañoo raaxaloo woon ci biir jullit ñi ngir seeni intérêt yi bopp ñoom du ñu nangoo dem xëy na sax ñi ci nekk yéeféer ci xeetu Seydina Muhammad daañu dem waaye naafiq yi ñoom dañuy taxaw duñ nangoo dem waaw jaxasoo nag ñi gëm waaw foog ne yàlla du leen xàmmee fekk yàlla moom tabaarakallaahu eh, xam na leen bu yàgg ñoom naafeq yooyu moo tax jullit na sellal rek waaw tey lislaam bi am na ñoo xam ne eh, dugg nañ ci ngir seen intérêt waaye taxul ñu gëm ko xataa tarixa yi am na ñoo xam ne tarixa yi ñu dugg gëmuñu ko àdduna rek lañ fay wut àdduna rek lañ cay wut nekk ci tarixa te wutuloo ci lu dul àdduna artiste bi siiw rek a tax mu dugg ci tarixa boobu commerçant bi siiw rek a tax mu dugg ci tarixa boobu ak am ami ci àdduna muy alal waaye dugg ci tarixa ngir yàlla dafa gën dugg ci ngir àdduna waaw tabaarakallaahu eh, mu ngoog su ko defee foofu nag dana am benn Eh, benn malaaka muy génne ci côté ndeyjooru arash malaaka mu rëy la moo xamante ni bu ñu dajale woon juróom-ñaari géej yi ëpp ci àdduna nee na malaaka mi dana ko mën a teg ci benn ci catu baaraamam te géej ya du daj du daj du daj baaraamu malaaka mi kon malaaka mu na malaaka mu rëyee noonu mooy génne ci yaminul arsh ci ndeyjooru arsh su ko defee lu muy wax dafay wax jullit ñi wax ne leen moom mooy yàlla ne leen ana ko may seen boroom ndax rëy na nit ñi suñu gis yàlla ñoom ñëpp ñu jàkkaarlook moom waaye ñiy jullit daañu xam ni kii du yàlla waaw su ko defee nag ñu weddi ko ca saasa ne ko déedéet doo suñu boroom nee na mu daal di dawaat moom malaaka ma laqatu ab diir mu génnaat ci càmmoñu waa daal daldi waxaat baat ba ne leen man maa di seen boroom jullit yi ne ko mukk doo suñu boroom bi yàlla demee nag ba xam ne jullit ñi xam nañu kii seen boroom ak ku dul seen boroom ndax seen degré ngëm yàlla moo leen mën a ràññet leel kii yàlla ak ku dul yàlla foofu nag la yàlla kontaanee daal di génn nag ci jëmmam moom suñ borom subhanahu wa taala nee na bi mu génnee nee na waxul sax daf ne tëll ñëpp rot sujjóot waaw fa yaxiruuna sujjadan nee na bi ñu sujjootee ñoom jullit ñi képp ku doon jaamu yàlla doon jullil yàlla julli gu normal te yàlla tax say cër dafa normal nga sujjoot sujjoot bu normal sujjootal yàlla ngir màggal ko naafiq ya taxawoon nag bëggoon a sujjoot seen ndigg ya dafa cang dafa kale ñu bëgg a sujjoot mënuñoo dem dara lematul ci seen kii ñu nekk ay rëboo taxaw ñu ñett ñetti ñett ñetti mënuñu sujjoot waaw ñu sujjoot ca leen xamee nag ne bokkuñ ci waaw ña ca bokk ñoom dañ ko def ci àdduna def bu sell ñoom sujjoot nañu sujjoot bu normal foofu nag la malaaka yi waxee ne ah wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun yéen naafeq yi da ngeen doon jéem a jaay yàlla muus génn leen bokk leen fii kon ña sujjóot mooy ña gëm yàlla ñoo fa des ñi ñu fa génnee mooy rëboo ya nga xam ne mënuñu woon a ndax daan nañu julli naam fii ci àdduna mais yàlla taxul woon ñuy julli wala boog ñu ngi woon ci àdduna ne gëm nañu yàlla xataa daan nañ wax laa ilaha illallah di aji màkk waaye fonk ñu woon julli am na ñoo xam ne ajuma ba ajuma la ñuy julli am ñoo xam ne weeru koor ba weeru koor lañuy ñuy julli am na ñoo xam ne balaa ñuy julli waxtu wa weesu waaw su ko defee yooyu nag day dema dema dema dem ba daf lay daal di dugal nag ci groupe bu yi nga xam ne bu bu borom bi ne tëll ñiy joot doo ca bokk ndax dañuy kaste sa ndigg kaste say cër nga ne jodd taxaw mel ni hmm. waaw su ko defee ñu ne waxoon nañ leen ngeen julli ci àdduna ngeen bañ moo tax fii dungeen fi julli ñu doon julli rek a fii sujjóot tey moo tax malaayka yi ne leen wamtaazu na ngeen ràññetliku tey waaw daañu leen xàmmee de ayyuhal mujrimuuna yéen say saay si waaw alam ahadi ilaykum yaa bani adam yàlla ngi wax ak doomu aadama nag ndeysaan wax bu ñeewante ni ko xanaa wëllërante wu ma woon ak yow yow doomu aadama an la taabudu cheytaan ne la bul jaamu cheytaane sa noon la ndax innahu cheytaane aduwun noon la mu biinun bu di aji bir jik noonu lëkkum di leen ñeel cheytaane seen noon la waxoon naa leen bàyyi leen ko bu leen ko topp bu leen ko def ànd baaxul yéen rek la bañ wa ni'buduni wa an ni'buduni waxoon naa leen pour ngeen jaamu ma man yàlla te haada lii ma leen digal de siraatun mooy yoon wa mustaqimun ba di aji cow wooral yoon wujub baa ngi nii moom laa leen waxoon mooy ngeen jaamu ma te bañ a jaamu seytaane waaye ngeen bañ kon nag islawha al yawma islawha jaaru leen ci safaraw jahannama islawha lakk leen tey ci safaraw jahannama al yawma tey yàlla nag ne du sama coxor de bi ma ci koosu la nga xam ne takfuruuna kuntum nekkoon ngeen takfuruuna doon ko weddi koos bi taxoon ngeen weddi dekki ba weddi bis bi liggéeyalu leen ko dara loolu moo leen dugal safara waaye du sama coxor ndax man soxoruma jegewuma sax ak soxor jox naa leen xeel du ngeen ay rab waaw yonent yi laaj ngeen leen ay miracle joxe nanu ko yéen xeetu Muhammad wax naa leen yonent yi fi jaar yëpp wax naa leen fa ñu jaar ña leen weddi woon fa ñu tabarkalla ñun moom amuñu lay li tax amuñu lay mooy ñun ñooy seede sax xeet yu njëkk ya waaw ndax wax nañ ñu koy aadam waaw wax nañ ne amoon na ñaari doom haabil ak waxoon nañ ne habil moo doon ku baax ka xaabil mooy ko bon ka waaw ñëw ci nuux wax lañu doon jaamu ay nit ñu baax te xoole suñ jamono tey ji maa ngi dégg ko naan eh, sëñ Fallou borom na am mu am d'accord waaye dafa am baat yoo xam ni ki koy wax bu ko xamul rek mën na nekk lu danger ci moom lu garaaw ci moom ndax kun fa yëkkoon yàlla rek ko moom amal mu am yàlla rekk ko moom waaw loo bëgg-bëgg sa sëriñ danga koy jox li mu moom ndax bëri na loo xam ne musiba la te làmmiñ moo ca dugal nit làmmiñ moo la mën a jox cëru yàlla bu rëy mais moo la mën a jox safara su garaaw te nag suñu yonent yi ni ñu baaxee ci ñun noonu leen mën a loroo ci ñoom suñu waliyu yi ni ñu baaxee ci ñun noonu leen mën a loroo ci ñoom moo tax ku ciy wax baat nanga dem ci ko xam laaj ko baat bi naka la waaw ak nu mu tëddee ba ci ziyaara yi ñuy def ci bàmmeel yi bokkaale yi ñu ci ëpp ñi ciy ciy jariñu ñi ciy loroo ci ëpp ndax bari na ko sukk ci xabru fekk day bokkaale hmm? te intention moo doon def fa lu baax waaye ñàkk a xàmmee nag ak ñàkk xam moom mooy indi tabaarakallaahu yenn musiba yi moo tax ñi xam waruñu noppi nañuy orienté nit nit ñi ndax ñi dugg safara dañ ne law kunna euh, naaqilu waaw nasmau aw naaqil bu fekkonte ni nangoon nañoo déglu borom xam-xam yi wala ñu am xel kon maa kunna fi ashaabi sair du ñu bokk tey ci waa safara waaye nag bu fekkee danga nga fàtt say nopp euh, jiital sa xol te jiitaloo sa xel waaw Sëñ Tuubaa daan wax ne na nañu jiital xel yi teg ci xol yi waaw su ko defee nag boo jiitalee sa xel danga déglu ki jàng da nga déglu ki nga xamante ni moo la sut alwa mu ne la nii la yàlla bëgge nii la bañe tabaarakallaahu moo tax yàlla ne islawha al yawm lakk leen tey ci safara bi ma ci sababus la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen takfuruuna doon ko weddi luñ leen mas a wax ci yàlla wàllu yàlla ngeen weddi ko waaw jiital seeni bëgg-bëgg seeni jis gis al yawma tey de ndax naxtimu daañu kaste ala afwaahihim ci seeni gémmiñ ndax nit ñi bu ñu leen bàyyee ñu wax dañuy fen léegi gémmiñ gi la ñuy kaste xam nga lu ñuy wax loo cër yi waaw su ko defee loxo ne maa sàccoon waaw tànk ne maa ko dox waaw bopp ne maa yanu waaw biir ne maa lekk làmmiñ dégg nga dégg nga euh, cër bu ci nekk daal day wax moom la alquran wax al yawma tey mënu leen ma nax de cër yi sax dañuy wax waaw jugement bu leer lay def waaw naxti mu daañu kaste ala afwaayim ci seeni gémmiñ wa tukallimunaa daañu waxloo aydihim seen loxo waaw wa wa tashhadu te dana seede arjuluhum seen tànk ya bi ma ca la nga xam ne kaanu nekkoon nan yaksubuuna daan ko faggu di ko jëf ci àdduna ndax bu ñu bàyyee gémmiñ rek mën naa fen kon nag gémmiñ dana wax waaye itam cër yëpp daañu wax mu ne walaw nashaa'u bu ñu sooboon ñun yàlla la masax masaxnaahum nee na daañu masax yéeféer yi ala makaanatihim ndax mënuñ ñoo raw xamuloo ne yàlla bu la neexoon bu ko neexoon léegi léegi léegi mu def la tabaarakallaahu fas wu ñuy wala mbaam mu ñuy war mën na ko yàlla itam bu ko neexoon léegi léegi léegi léegi sa kanam gi li muy rafet rafet mu sànni ci yow jàngoro ju la ñaawal léegi demal tey ci hôpitaux yi ñi nga xam ne jàngoro dugg na ci seen yaram nga xamoon leen ci taar da nga ci gis koo xam ne jàngoro ji da koy lekk di ko lekk ba ndox dootul desati ci yaramam waaw te jigéen ju rafet la woon wala waxambaane góor gu rafet la woon waaye nga gis ko ngaam yaa nga dugg da nga ci gis ñoo xam ne sax seeni seeni seeni bëñ la yàlla di sànni benn cancer nga xamante ni day gonfle lex bi bu boo ko jisee monstre lay niru te pourtant ku rafet la woon waaw gis nga yàlla sax am na ay mbindeef yoo xam ne mu ngi ko garde mu di ay jàngoro yoo xam ne rek léegi rek mën na laa changer nga nirook mbaam xuux wala nga niroog golo wala nga niroog leneen waaw kon yàlla ne walaw nashaa'u bu ñu sooboon la masaxnaahum ñu masax leen ala makaanatihim ca fa ñu nekk seen barab yooyu waaw fa mastata fa mastataa'u mudiyan waaw du ñu mën a wéy wala yarjauna te ñu mën a wéy ca taar yama bind ba ma leen bindoon wala yarjiuna te du ñu mën a dellu si suñ borom subhanahu wa taala rawuñu ko de rawuñu ko de foo toll waaye xoolal kasis kale Mouhamad Ali tabarkàlla gis ngeen ko ba mu cay toll rafet nekk boxeur boo xam ne macha allah léegi ñu wane ko mu ngay lox mu ngay yuut tabarkàlla xam nga yàlla sax masku masxu masxu ko parce que wax dëgg yàlla mën na wax ne nattu bu ko dal la ndax jullit la tabaarkàlla waaye am na yeneen eh, tabaarkàlla gis nga sa nasimuhu alal xurtuum dafa am benn yéeféer bu bon waaw boo xam ne ci suuratu nuun wal qalam yàlla dafa wax ne mm, di ko xas waaw Walid ibnu Mugiira la dafa ñëw xas yonent bi sallallahu alayhi wax ko lu ñaaw lu ne yàlla tàgg yonent bi ba wax ko ne ko kenn gënu la rafet jikko kon lépp luñ la waxal rek du dëgg te ki la ko waxal itam day fen waaye xamul ne euh, doomu njaalo la ndax baaxul waajuram baaxul te itam maa lay yëgal ne muy niroog mbaam muy niroog ñay fekk niroog ñay ga yàlla ngi ci junju ne dana am xare buy ñëw ca kanam daañu ko dóor jaasi ci kanam gi ba jaasi ji dana yàq kanam gi ba boo ko gisee da ngay foog ne aw ñay la kooku yàlla masxu na ko ngoog suñ boroom ne nit ñi day bëgg na nañu dund ñu ngi ciy rey seen bopp pour am ko di lu ne dañ ci gis ñoo xam ne dañuy defar seeni yaram xoola ku mel ni Michael Jackson xam ne changé na yaramam nu ne ba léegi am na ñu mel noonu waaw poosé say ween jigéen nga bëgguloo tabarkàlla def yeneen weeno artificiel yooyu te tabarkàlla eh, dem ci tubaab yi ñuy opere sa yaram pour rek nga bañ a màggat <laughs> yàlla ne coono rek waaw coono rek waaw seen yaram yi ak seen taax yi ñoo yem ak seen oto yi màggat rek waaw tôlier bi lu mu ay ay ay ay oto bi ci màggat rek la jëm mënu ci dara day dem ba jikki fu mu laala te weñ gi bët yàqu kon suñ borom ne bëgg ngeen àdduna bëgg ngeen yàgg fi waaye nag na ngeen leen leer ne ku fi yàgg daa màggat sa yaram dana yàqu dana dem ba bët yi ndox dootu ca desati waaw bëñ yi commencé wadd tabaarakallaahu ndigg li commencé bañ macha allah waaw tabaarakalla su ko defee noonu rek la suñ borom nee na boo fi yàggee daal mbir mi commencé tabaarakalla di yàqu di fënax nee na waman képp koo xam ne noo am mirhu nee na guddal nañu fanam fii ci àdduna dundal ko fi nee na nu nakkisu daañu ko njett fil xalqi ci bind gi ñu ko bind waaw ba nga xamante ni cër bi dafay gën a doyee di waaye du gën a am kàttan ndax yàlla def laa bind njëlbeenug doyee di mooy nga dib liir ñu lay fab mënuloo sa boppam dara waaw su ko defee diggante bi ci ngay am kàttan kàttan nga da koy nanguwaat nga mujj itam ci doyee di moo tax ñooñu nga xamante ni tey tabaarakallaahu ñooy ñaan gudd fan dañuy dem ba leen di seen mujjug dund dañ leen di leewu waaw dañ leen di leewu tey bari na mag ñoo xamante ni tabaarakallaahu fa ñuy tëdd la ñuy defee lépp ah, bu ñu amee njaboot gu baax nag ah njaboot ga di leew di defar di tabaarakalla waaw ah, moo tax am na ñoo xam ne sax bëgguñu yenn gudd fan yi waaw ah, moo tax yàlla joxu ko yonent bi sallallaahu alayhi waaw dafa génne àdduna ci waxtu wu rafet waaw tabaarakalla fekk na boobu mënal na boppam tabaarakalla benn feebar boo xamante ni tax na eh, tabaarakallaahu nga xool ko ne kii mukk waaw kon daanaka yenn gudd fan yi am na ñu ko soxlawul ndax suñ borom nee na boo ko soxlaa itam du tees sa cër yi moom day dem ba dara dootu ca baaxati waaw wa man nu ammirhu képp koo xam ne dundal nañ ko nu nakki su daañu ko njat fil xalqi ca mbind ga ba cër ya dootul mënati dara afala yaaqiluuna xanaa ñoom amuñu xel fii kenn du fi des waaw seeni maamaati maam dem nanu seeni maam dem na ba seeni bàyyi dem nanu ñoom ñoo fi des waaw na ñële demee rek lañuy ñuy demee kon nag surtout juif yi nga xam ne àdduna rek la ñu bëgg tabaarkàlla mu ne yonent bii nag wa ma allamnaahu ñu ko ashaara way ndax way jekkul ci ku mel ni yonent ni way dafa ànd ak santiment waaw te nag ku yàlla yónni warula am santiment dëgg gi ngay wax ah, bu ci yërëm sax sa bopp bu ci yërëm sa way jur bu ci yërëm tabaarakallaahu doom ya nga jur moo tax yonent bi waxoon na ko nee na atte bu ñëwee dal sama doom Fatima li ma koy bëgg-bëgg dana ko wéyal ci kawam Eh, yonent bii nga xam ne tey alquran wàcc na ci moom mu koy jàng ngeen foog ne waykat la du poète wa ma allamnaahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu jaaduwul ci ku mel ni kii sax muy nekk waykat mukk in huwa nekkul lu dul lii ma ko jox illa dikrun lu dul mu di alquran waaw dikrun mu di njëriñ dikrun mu luy fàttali nit ñi yàlla pour ñu am tawxid wa quraanun mu ne alquran la mubiinun ju di aji leer alquran nag mooy lépp loo xam ne njariñ la lu jullit mën a dunde fii ci àdduna mu jariñ ko fi jariñ ko àllaaxira loolu moo di alquran alquran mooy li dajale mboolem xeetu yiw yi pour jullit bi wala pour nit ki li yunsira ngir na waar moom yonent bi ci alquran jooju man képp koo xam ne kaana nekk na xayyan di aji dund ci ngëm waaw waaye nag du tee nag wax dëgg yàlla dana am xol yu ko nangu ak yu ko nanguwul am na xol yu nangu alquran gëm ko bëgg ko waaw di ko yittewoo di ko jàng fonk ko lool waaye am na ñoo xam ne nag du ñu bëgg alquran waaw rajo bu ñuy déglu sax bu dee alquran la ñu avancé waaw ndax soxlawuñ ci alquran dara ñooñu nag ñoo war a dugg safara moo tax yàlla ne wa yaxiqa yey na alqawlu nee na kàddu ga ban kàddu mooy kàddu am nañu war a alku ci nit ñu dugg safara waaye ñooñu kàddu googu yeyul lu dul alal kaafirina ci ñi weddi yàlla ñooñu daal ñooñu moom safara war ci ñoom kon nag alxuraan bu ñëwee ki koy jariñoo mooy xol bi gëm yàlla xol boobu nag àjjana la jëm yàlla nag nee na àjjana du fees safara moom mooy fees kon nag am na ñoo xam ne fokk safara la ñu jëm ñu jarul ñuy sonn ci ñoom ne leen bàyyi rek ñu dugg safara mu ne awalam yaraw xanaa gisuñu ne an naa ni ki ñun xalaq naa lahum ñoo leen mimma ca lenn ca la nga xam ne amilat nee na jëfe na ko ay diina suñu loxo liggéey na ko ay diina suñu loxo anaaman mu di ay xéewal dégg nga fahum te ñoom nee na wala ñu nga fahum te ñoom maalikuuna ñuy way moom lahaa ko ñeel maanaam juru kër yi la yàlla jox juri kër yi yaa ngi naan maa moom bay wi maa moom xar mi est-ce que yaa ko bind binduloo ko ah, nit yàlla ba dafa wax ne lu tax yàlla teg la nattu nga onk te mbindeef bi nga nekkal ci kër gi am na ndey am na baay muy xar mi nga ne yaa ko moom d'accord nga toog ba mu neex la nga ne tey daal dama bëgg waa kër gi añ a yàpp xar mi tooñu la saagawu la nga daas sa paaka ba mu ñaw nga ñëw tëral ko fekk ko takk tànk yi tëral ko jël paaka ba rendi fees ñu teg kaw dër yi nga taal sa taal tabaarakallaahu daal di togg jox njaboot gi ñu lekk ba suur waaye yow loolu sañ-sañ boobu ku la ko jox ah est-ce que xar mi ëllëg bu layoog yow ci yàlla ne la tooñ na ma rey na ma te bindu ma est-ce que yàlla du la dugal safara bu la àttee dana jox xar mi dëgg ndax waroo ko rey binduloo ko moomuloo ko kon nag xéewal la ci ñun yàlla bindal ñu xar ne ñoo ko moom war nañu ko rey waaw nag léegi segam yow moomeel googu moomeel majaasi la du moomeel goo xam ne maanaam moomeelu dëgg-dëgg la dañ la ko askanale jox la sañ-sañ bi waaw mais kër la goo xam ne rek bàyyi la am mais du titre foncier bàyyi la kon yàlla daf la abal moomeel gi mais moomuloo ko nga mën a am sañ-sañ boobu te amuloo yërmande ci moom te ba nga ko koy def metti na kon nag yaa xay si mu laana bu yàlla jëlee jëkkër ci yow bul mer bul saalit bul ne yàlla dalaa bañ waaw xataa yow bu la yàlla tegee bul ne daf la bañ waaw ndax moom moomee la xaqiqi la du majaasi dafa am sañ-sañ ci yow te yow juru kër gim la jox li ngay def ci moom c'est normal yàlla itam li muy def ci yow c'est très normal bële c'est normal bii moom c'est très normal parce que bii xaqiqi la bii majazi la bu ci nekk dafa jara ràññee kon nag juru kër yi ñu yàlla jox nga xam ne wax dëgg yàlla moo ñu ko xéewale léeg nga gis ci euh, géléem goo xamante ni wax dëgg yàlla loo ko sëf mu yanul la ko waaw foo ko mat mu topp la te bu la attaqué woon xeex nga jaaxle waaw kon kala ko tàggatal ba nga mën koy jëriñoo ne la yaa ko moom ah, bëgg na la yow doomu aadama kon nag yàlla fonk nanu nanu ko bàyyi xel te di ko sant ci loola moom la ñuy fàttali nee na wa zallalnaaha ñun yàlla ñoo leen ko tàggatal lahum ñeel leen fa minha am na ci juru kër yooyu rukubuhum wala jóge na ci juru kër yooyu rukubuhum nee na yoo xam ne yéen leen di war te mooy fa sax dégg nga maam géléem ak eh, mbaam waaw fan yii sax am na ñuy rey mbaam yi tabaarakallaahu rey mbaam yi di ko jaay eh, loolu xaq la mbaam kenn du ko rey di ko jaay waaw ndax mbaam mu ngi araamee ci xaybar waaw ci la yàlla waxee ne bu kenn lekkati mbaam kon nag ñii rey mbaam yi di ko dugal ci yàpp yi di ko jaay ñu ngi def lu bon ñu ngi def bàkkaar bu rëy waaw mbaam dafa xaraama lekk dafa xaraama lekk mu ngi xaraamee ci xay ci xaybar keroog cin yëpp lañu tuur kon nag ñuy jaay mbaam yi nan ko kii yàlla bi mu daganal ci ñun pour ñu lekk ko muy géléem géléem mën nga ko war mën nga ko sëf mën nga ko rey lekk kooku ci géléem la dagane waaye nag daganul ci fas daganul ci mbaam moo tax suñ boroom ne fa minha am na ca yoo xam ne rukubuhum nee na mu ngeen leen a war wa minha am na ca yoo xam ne sax yaakuluuna mën na leen a war ba pare di leen lekk muy dellu ci daal di dellu ci gëléem mhm. walahum ñeel na leen fiiha ca waruwaay yooyu naa manaafiu ay njariñ yu bari njariñ njëriñ nag mooy eh, sëf leen tabaarakallaahu eh, bayloo leen waaw tabaarakallaahu eh, gis nga nag waaw waaja dafa war nag wi nag wi ne ko wàcc ma yàlla bindu ma pour nga may war di ma sëf bagage waaw daf ma bind pour boo ma soxlaa nga rendi ma lekk waaw daf ma bind pour boo dee bay nga bay loo kon am na ci eh, eh, ju eh, maanaam jur googu mu yàlla yàlla jox am na ci yoo xam ne am na nañu ci njariñ yu bari yoo xamante ni tabaarakallaahu gis nga seen der yi ci la ñuy defaree dàll nga ciy defar ay yére kiwir tabarkal di ci defal ceinture yi ñuy takk ci am na ci sax yoo xam ne saag yenn saag yi ci leen koy defaree am na ci yoo xamante ni tabaarakallaahu mën nga koo defar def ci sa mbuusu ndox mu sedd guy nga koy naan kon e, njëriñ yu baree ngi ci yoo xam ne yàlla détaillé wu ko waaw wa masharibu nee na am na ci itam e, ay naanuwaay bi max maana gëléem gi dang koy war bu la neexee nga rendi lekk bu la neexee nga ratt ca meew ma naan yépp mu nga ca yàlla ne waaw lii ma leen defal afala tashkurun xanaa du ngeen ma sant waaye wax leen ma jëf ndax moom rek laa yeeyoo nee na wa taxasoo jàpp nañ min dunillahi walis yàlla alihatan ay yàlla laallahum mbas le ñoom yunsaruuna def na leen dimbali ëllëg ñoom kat ànd ak loolu lépp ma leen defal faale wuñ ma ñu ngay dem wuti ay xërëm di leen jaamu foog ne xërëm yooyu ëllëg ñoo leen di ramm bu ma leen di régler xërëm yooyu duñ leen ramm danaa leen boole xërëm ya dugal safara wax naa leen ne nag xërëm du bant rek xërëm du géej ndax am na ñu gëm géej di ko jaamu wala dex xërëm du safara am na ñu gëm yooyu xërëm def nañu ko yonent xërëm def neen ko ci biir xërëm yi leen kon képp ku jël yooyu ak xërëm ak nu mën a doone jàpp ne ëllëg moo la mën a seve sa diggateeg sa boroom yàlla dana la jël yow dugal la safara yaa xërëm ba bu fekkee xërëm ba def na lu ko dugal safara mu ngoog waaye nag yoon ci yàlla Isa du dugg safara ndax moom waxul kenn moom ak yaayam ne leen jaamu leen ma yàlla la leen joxe ñoom kay ñoo topp seen bëgg-bëgg di ko jaamu am na sëriñ soo xam ne itam waxuñu kenn ne leen jaamu leen ma taalibe yi ñëw ci gannaaw rek di jaamu sëriñ sa su boobaa yitam taalibe la yee taalibe la ñuy seppat dugal safara sëriñ bi dugal janna ndax moom itam day taxaw la yoo waaw mu ne su ko bu boobaa nag laa na du ñu mën ñoom xërëm yooyu nasrahum dimbali ña leen doon jaamu mënuñu ko kon sëriñ bi wala eh, eh, nu mu tuuti eh, waliyu bi wala yonent bi wala safara si wala dex gi dégg nga ñoom amuñu kàttan ëllëg pour dimbali taalube yooyu doon leen jaamu buñ leen dee dugal safara yàlla nee na parce que li alxuraan la xam nga yàlla moom bettul kenn li mu wax moom dafa leer laa yastatiuuna du ñu mën ëllëg mukk nasrahum dimbali leen waaw wahum ñoom kay jundun mbooloo leen muxdaruuna boo xam ne daañu leen teewal lahum ak ñañu doon jaamu bu yayee ci ñoom dugal leen safara kon nag yonent bi daal moom gàcce ngàllaama wane na yàlla te taxaw fële nee na falaa yaxzunka bum la metti kon qawluhum wax ci weddi giñ lay weddi di dàq ba dekkal ak atte ba bu mu la bu mu la metti yow yonent bi inna ñun yàlla naalamu xam ne maa yusirruuna la ñu nëbb wa maa yulinuuna ak la ñu feeñal awalam yara xanaa gisul al nit ki ne annaa ni ki ñun xalaqnaahu ñoo ko bind min nutfatin jële ko ci toq mëniyu fa ida huwa xoolal moom xasimun xulookat la kat mu bii mun ba ji aji biir ji xuloo waaw dañu wax ne euh, ubay ibnu xalaf waaw moo doon wax di laaj ne waaw ndax ñun bu ñu dee waaw yàlla mën nañoo dekkal ndax suñu maam yi dee ba nekk ay yax yu fënax ndax yàlla dana leen dekkal waaw mu ne awalam yara linsaanu annaa xalaqnaahu min nutfatin fa ida wa xasimu mubin wa daraba mu ngay sadd lanaa di ñu ñeel mathalan ci misaal wa mu ngay fàtte xalqahu nee na cosaanu mbindam kii jaaxle ci dekkal te moom fàtte na cosaanu mbindam ki nga xam ne yow amuloo woon sa dara taxawul woon ñu amal la waaw bu fekkee nag moom dara taxaw na ndax lu bon lu ak nu mu mënti demee danga nga tiim bàmmeel bi ni a ngi fii kon kay boo gasee mën nga faa fekki yaxam kon nag ka nga xam ne bind na la te gisul woon sa dara mu amal la kon nag bu gisee sa dara ah tabaarakallaahu ah, cere ju tooy ci la diw dàqe mu ngoog moo tax. wa ba mu ngay sadd la naa di ñu ñeel mathalan ci misaal wa nasiyate fàtte na xalqahu cosaanu mbindam xaala mu nga naan moom ubayub na xalaf man yuxyi l idaama ana kan mooy dundal yax yile wa hiya te ba jamono ba mu koy dundal ramimun muy aji fënax ci biir suuf waaw ay siècle yi demal Égypte firaw naa nga fa statue ba léegi ñu ngi ko garde waaw ségam ay nit a garde statue ba rek rawatina yàlla ma ko bind yàlla nag moom waxul sax ñi nekk ci bàmmeel yi waaye ñi nga xam ne sax réer na nañu ba kenn gisatu leen nga xam ne acide leen leen dugal wala jën yee leen tabarkàlla waaw mel ni ganaar gi nga jël rek saaf ba mu baax nga bokk ak waa kër gi lekk mu tas ci biir yi yooyu yëpp yàlla dana leen dekkal ëllëg qul waxal yow yonent bi ne yuxyiha dana dundal yax yooyu ba bàmmeel yooyu alladi yàlla mi nga xam ne anshaaha moo ko créé te amul woon awwala ci njëlbeenu yoon wa wowu moom yàlla nee na alimun aji xam la bi kulli xalqin ci lépp lu mu bindagul ak lu mu bind ba noppi lépp la xam waaw alladi mooy yàlla mi nga xam ne jaala lakum moo leen bindal min ashajari al axdari nee na ci garab gu natax gële naaran safara yàlla moo leen bindal ci garabu garab gu natax gi safara ashajarul axdar yi ci gën a siiw xam nga ci garab la yàlla bindee safara waaye am na ñaari garab yoo xam ne ñoo ci gën a siiw te garab yi dañu nëtëx te tooy bari ndox mooy garab yi ñu tuddee almarx ak al afaar waaw ñaari garab yooyu soo leen boolee soo leen jonjantale rek dafay daal di génnee safara daal di am tukkikat yi xam nañu ko nekkee ci àll amuñu almet bëgg safara buñ boolee almarx ak al afaar benn bi ñu ngi ko tuddee azandul ala ak azandul asfal soo leen boolee safara dafay dal di génn li ci yéeme nag mooy ci diggante ndox ak ak ak bant ah, yàlla mën ci génnee safara safara bi fayul ndox mi te safara lañ ko xamee mooy fay ndox ndox mi itam lakkul bant bi te lañu xamoon ci safara mooy lakk bant bi kon kàttan bi nga xamante ni moo mën a boole ñett yooyu benn bu ci nekk mën a génn te daw yàqal sa morom dara na la leer na yàlla moomu moo fekkoon toq mën yu mu génnee ci nit mu am yax hmm? tabaarakallaa lu ne feeñ bët génn di dox rolam gém euh, bëñ génn di dox rolam we génn ca di dox rolam te lépp yàlla nga ko programmé ci benn toq mën yu kon suñ boroom mu ngi jàngal fii ne euh, qul yuxyiha alladi anshaaha awala maratin wa huwa bi kulli xalqin alim alladi jaala lakum min ashajari al axdari naaran nanu xel lu ñoom nit ñi ndax ki nga xam ne jaala lakum moo leen bindal min ashajari al axdari ci garab gu nëtax gële naaran mu génne ca safara fa ida antum nga gis leen ñoom tuuxidu na ñuy taal ca garab googu ak na mu tooye hmm? kon ki mën a dajale yooyu te kenn ku ci nekk la ngay dox sa morom mënu caa yàq dara na la leer na yàlla moomu mën naa fekk yax bu fënax mu dekkal ko ndax moo ko bindoon ca njëlbeenu yoon ga awalaysa alladi xalaqa alsamawati wal ard awalaysa alladi ndax nekkul moom yàlla mi nga xam ne xalaq moo bind alsamawaati juróom-ñaari asamaan wal ard ak suuf ndax nekkul moom yàlla moomu bi qaadirin di aji mun ala an yaxluqa mu bind mislahum lu leen gën a tuuti te niroog ñoom muy nit ndax al akbar moom mooy dégg nga suuf al jurmul asgar muy nit moo tax boroom xam-xam bi jàkkaarloog nit ne ko yaa ngi foog ne lu tuuti nga neena na te àdduna nekk ci sa biir waaw mu ne ko waaw nu àdduna nekkee ci biiru nit ki mu indi tabaarakallaahu kawaar yi ci doomu aadama ne mooy sàmbandaay lépp luy xeetu garab waaw noonu la ko noonu la ko doon tabaarakallaahu lu ne génnee na ko ci nit ba nga xamante ni lépp lu suuf am rek danga ko gis ci doomu aadama yàlla nag di la wan ne man mi bind lu rëy lii te asamaan ak suuf bind naa lu leen gën tuuti te lépp a nga ca biir gis nga yoo li muy tuuti tuuti tuuti tuuti lu ne ci ñay rek mu ngi ci moom kon li ñay di rëy rëy rëy rëy yàlla bind na lu gën a tuuti ñay te lépp ñay a ngi ca loola te moo te moo yoo yàlla itam noonu la bindee asamaan ak suuf lépp lu nekk ci asamaan ak suuf mu ci doomu aadama tabaarkalla temps bi moo dul may pour ñu détailler loolu du ñàkk yeneen i waxtaan incha allah bu ñu agsi daañ ko détaillé li nit bokk ak suuf awalaysa alladi xalaqa alsamawati wal arda bi ala an yaxluqa mislahum yàlla ne bala moo posé question tontul boppam yàlla ne balaa xakkay xakkay man mi bind asamaan ak suuf bind naa lu niroog asamaan ak suuf te mooy nit waaw balaa xakkay mën mëne naa lu ne woowu moom yàlla daal alxalaaqu mooy créateur bi mooy kii créé alalimu te mooy aji xam ji bindul rek sànni noonu lu mu bind rek am na lu tax waaw ba ci mbóot mbóot mi nga gis mbóot muy dox am na mission bu muy dox ci yenn gëstu yi wax nañ ne am na microbe yoo xam ne mu ngi ci biir foos nguur rek moo mën a tax du gaañ nit ñi tabarkàlla yow nga foog ne fu la móot wi romb rek nga teg ko dal waaye am na lu muy dox moo tax suñ borom ne innama amruhu na nga xam ne mbiru buur bële buur boobule waaw innama na nga xam ne mbiru buur boobule di yàlla ida araada bu fekkee bëgg na shay'an dara an yaqula lahu daf koy wax rek kun nekkal fa yakunu mu ne yàlla lu mu bëgg lu mu bëgg rek danaa na am mu am moo tax na am mu am yàllaa ko moom yonent bi nekk na fi bu jóge fi kenn waxul ne borom na am mu am Abdul Qadir Jeylaani nekk na fi ba jóge fi kenn déggul borom na am mu am Sëñ Tuubaa nekk na fi ba jóge fi kenn déggul borom na am mu am na am mu am yàlla rek la mooy kun fa yakun moo tax ñi koy wax nanu xoolaat baat bi waaw naw nanu wëlu yëpp kenn ku ci nekk jox neen la sa daraja waaye nag buñ leen jaawaleek yàlla waaw kon nag yàlla fi mu jaar yépp ci nettali nee na daal buur bii nga xamante ni moom la ñu def faas ñoom yéeféer yi di ko wax lu ne nanu xam ne moom moom benn kàddu bi na am mu am moom dong moo ko moom innama amruhu na nga xam ne mbiram moom yàlla ida araada bu nammee shay an dara an yaqula lahu daf koy wax rek amal bu ko defee fa nu mu daal di am kon na am na na am mu am yàlla rek ko moom waaw am mu am yàlla rek ko moom ñi koy wax di ko moomale ay nit nan ko seetluwaat moo tax yàlla nag ba waxee baat bi mu daal di sellal boppam ne ah kàttan gi nga xam ne maa ko am nga xam ne lu ma ne na am mu am man nag maa ngi sellal sama bopp ne dara melul ni man kon ñii niroole yàlla ak seeni kilifa nan ko bàyyi xel ndax seen kilifa yee sori nanu loolu mosuñu ko wax ci seeni bopp waaw kon nag buñ leen ko tappal ndax mosuñu koo tappal seen bopp moo tax biñ ne Isaa yàlla la yàlla ne daan ndeyam daan na lekk moom muy lekk waaw ci yaram ak tegginam kon nag nañuy teggil yàlla yi ñuy jël di ko niroole ak moom moo tax fa subhaana suñ borom ne maa ngi tudd seen selluk buur alladi buur bi nga xam ne bi yadihi nekk na ci loxoom malakuutu kulli in nee na moomeelu lu ne kon nag boo na am mu am boo ko moomalee ni day mel ni kooku moom lu ne yàlla ne déedéet man maa moom lu ne moo tax ma sañ lu ne ma ne ko amal mu am waaw yàllaay wax de fa subhaanaalladi maa ngi tudd sellug buur ba nga xam ne ñu ngi koy dendaleek ñenn te yamut ak ñoom alladi buur bi nga xam ne bi yadihi nekk na ci loxoom malakuutu kulli shay'in moomeelu lu ne waaw mulku la rek waaw geeg taa gi dañ ko cee dolli pour mu mubaalaxa waaw nee na itam nag xam naa leen yéen doomu aadama sañ ngeen a def lu ne ngir seen dëgër bopp sañ ngeen a wax lu ne ngir seenug dëgër bopp waaye nag ci man ngeen di teer si ëllëg te ku ne danaa la régler ca la nga doon def doon ko wax waaw wa na te def na leen delloo si ilayhi fi man dangeen bàyyi xel li ngeen di wax di ko jëf waaw waaw fa subhaana maa ngi tudd sellub alladi buur bi nga xam ne bi yadihi nekk na ci loxoom malakuutu kulli cheyin nee na moomeenulu lépp loo fi gis nee na wa turjauna te def na leen delloo si ilayhi ci moom tabaarakallaahu suuratu yaasin a ngoog lii moo nekk ci saar bi lépp di tawxid di delloo nit ki ci yàlla moo tax boo ko dee jàng yàlla dafay kontaan malaaka yi dañuy kontaan nanu koy jàng ci kër yi ndax mooy xolu alquran di ko jàngal suñuy niiw di ko jàngal suñu bopp di ci faj itam suñuy aajo ndax lépp a ngi ci biir kon nag tabaarakallaahu seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi eh, doon leen firiir saar wi tabaarakallaahu ah lu ci jub nag ah, ngeen xam ne rek mbaaxu yàlla lu ci dëng nag ngeen xam ne ah tabaarakalla ah ñàkk gëm la waaw ñàkk déggam la ndax ba léegi ay ndongo lañ dañuy jàng kon nag ñuy euh, euh, tabarkalla jéggalu xaw nañu xabaabal